jërë ngeen jëf mbokku internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne ñu ngi am mbégte ak kontaan àndaat ak waaye balaa boobu dina nuyu kilifa diine kilifa aada yi ñaanal way dawli yàlla yërëm na te xaar lay àjjan di ñaan ñu tëdd si loolu hôpital yàlla fëgg seen bopp waaye sañ ñu ko te xaaraju ko ñu ngi ñaan suñu borom ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw suñu moom dimbale ma dellu si waat si biir di ñaan tamit jàmm ci réew mi

am na tuuti retard ci làmb ndax yaakaar naa ne fi ñu ko waroon dégg ci ay moromam ndax ndaanaan la boo xamante ne nii làmb da ko yàgg a bàyyi xel ndax ak takkusaan yi fi bëre ak ñenn ñi nga xam ne si yenn mbër yi ba mu leen daan ci yooyu jamono du ma def loolu bàyyi ko mu nuyoo rek dugg nga xamante mooy ci waxtaan wi Bébé Talla maa ngi lay waaw maa ngi ma sant yàlla ji seen Muhammad di sant sama ñaari waajur la nuyu di waa Yëmbal di nuyu waa Mbos di nuyu ñëpp waaw di la dalal tamit fii ci Yëmbal ñu bëri am na ñoo xam nañ Bébé Talla ñoom na amateur yoo xamante ne nii xam nañ bëgg nañ xam kuy Bébé Talla au fond kan mooy Bébé la boo xam ne si dafa nekkoon si mbapat yi di bëre ba mu yàgg mu ñëw arène xëy na nag ñu bari nag mu xamuñu ma retard bi moo tax mais li ma doon wax Modou Mbaye keroog ma ne que eh, ñii nii ñoom xamuñu ma yow ma xam ndax man 2014 laa commencé bëre te def naa retard doog naa presque 3 ans 4 yoo xam ne si bëreewu ma loolu moo tax mais Bébé Talla moom benn taalibe la nii rek boo xam ne si day ñëw di sàkku di jàng bëre daal dëkk yëmbal nekk yëmbal tamit. Mm-hmm. waaw mais retard bi su làmb la trois ans nga toog bëre wala wala soit dafa am loo xamante ni moo tax nga defoon reculer si làmb wala lu. waaw xam nga dama doon bëre ma ñëw tegale ay victoire ba mu yàgg ma commencé tegale défaite mm-hmm. ma xam ne lii nii war naa dem toog defaruwaat ma xoolaat sama bopp mm-hmm. looloo tax ma dem toogaat toog trois ans ma quatre ans loolu rek la meeru dara moom. nga ñëwaat ci làmb. ma ñëwaat ci làmb waaw. yaakaar naa ni bokk nga si a ës yooyu jamono yàlla daan jamono yi ngay ba ngay nekk si ay dynamique victoire alliance Baldé yaakaar naa maa ko njëkk a daan waaw maa ko a yóbbu top 5 booy lëbëg tamit jamono yooyu maa ko daan booy lëbëg bu caaroy jaamalaay tamit maa ko daan waaw ñooñu ñëpp boobu maa ko tegale 3 combats 3 victoire si laay doog a ñëw nongoloo daan ma après si laay doog a am jafe-jafe laa daan ñoom sël bu ndaw après si laa waat ñëw gis làmb di muy doxee waaw ma defarwaat man man daanaka mën naa ne génn woon si làmb sax ndax man ndax man boo xoolee seen écurie booy yu bari bu ñu amee combat maa ngi damay contact bu ñu dem stade maa ngi doon yóbbu waaw man maa ngi doon entraîné maa ngi doon def lépp moom mooy jëlu ma woon combat man maa ngi doon entraîné maa ngi samay lépp waaw mais tamit instant yi ma jékki-jékki ñëwaat gis naa làmb ni muy doxee tamit ma ñëw moo tax ma ñëwaat quoi. moo tax nga ñëwaat waaw. même nga gis làmb muy doxee nii ba tax na nga inspiré nga waaj a takkaat ngeen mu ñëwaat. booy yi bu ñuy bëre man maa leen di indi su ma ñëwee ma toog ma xam ne ñii nii man sama place mi xam nga man mënoon naa toog ma quatre ans bëri ma ni mën naa bàyyi mais mais damaa ñëw toog ma gis gars yi bëri ma xool làmb xam ne man sama place mi ngi si làmb booy yi fi nekk man mën naa bëri ñoom ba léegi loolu moo tax man ma ñëw bëriwaat loolu tax nga ñëw bëriwaat hmm. nga ñëw yaakaar naa ne jël combat boo xam ne combat njar dem la de waaw combat boobu ñëw naa jël ka li tax ma jël ka sax man pour ma amoon combat dafa jafe ndax boo xoolee ma Ndiaye wutal na ma ay combat ay yooni yoon du àntu léegi nag ma ñëw booy bi ñëw xaw ma nu may def ma daal koy jël ma ñëw combat bi tamit demee noonu may sant yàlla tamit ndax mënoon toog quatre cinq ans bëre ma ñëw jël ko bëre daanu mais xëy na ñëw naa jël ko bëre ma combat def maxi niil loolu tamit maa ngi koy sant yàlla bu waroon bëre mhm. mais damaa blessé woon mhm. moo tax combat bi bëre ko mais man am naa combat maag reen guy. le 6 euh, août bi mooy journée yaakaar naa ne ménagères yi. le 6 août bi mooy euh, journée. non journée non dimanche bi journée dimanche bi waaw dimanche bi reenu guy gi ñëwoon na Assad. waaw si Mbéwane. diggante Mbéwane production Ibra Diouf. parce que reenu guy ñëw mooy moom ne woon na combat am adversaire am dafa daal di blessé. moo tax daal di ñëwul. mala waroon bëreel. ñoo la waroon a bëreel. waaw euh, waroon bëreel préparé na def lépp mais mais man maa blessé woon moo tax bëriwuñ. Mhm. daa bi la fi dugal Médical CNG nangu waaw ma dugal Médical ma CNG nangu ko moo tax bëriwuñ moo tax bëri wala moo tax bëriwuñ mais bu soobee yàlla dañuy bëri mais waajaloon ko mel ni reen guy ci taay bi ci xeex bu sax bi ci bëre bi aw ma reen guy man aw ma leen lu may xalaat si moom wallaahi aw ma leen lu may xalaat si moom booy ñoo nekk naan reen guy lii ñu naan ay bu ñëwee day dóor day yooyu mais man bëri naa ak mbër mu ne yow ku bëreeg nongaloo bëreeg Bébé Bismi bëreeg Alliance Baldé bëreeg Boy Lobby gi bëreeg kii Paul bu daaru xam nga kooku reen guy jaaxalu ko te ñoo ñëpp bëri na ak ñoom te si te si kàttanu yàlla su ma bëree ak moom yàlla dina may ndam si kawam. Hmm. waaw yàlla dina may ndam si kawam. si kaw adversaire yi nga ak moom am na différence. non man gisuma si benn benn différence leen daal leen daal laa si gis ma xaw ma mett muy booy bi ma leen wax nañ yaru ñu ngi dugg si tiktok yi dugg sama tiktok duggu fu ne di saaga te saaga moog làmb ànduñu. booy reenu guy. waaw loolu daal loolu daal laa koy wax na booy mi yaru làmb moo ñu boole man moom bu làmb jeexee jeex na hmm. waaw. làmb jeexee jeex na. bu jeexee jeex na mais instant bu fekkee sa yakoon am nga daal yaa ngi préparé ki nga xam ne mooy ren gu moom boo xoolee boo bëggee dëgg-dëgg man man préparé wu ma ren gu man làmb ji nekk sama kanam laay laay préparé mais pas la ñu waroon mu jeex ma bi tijjee maa ngi moom mhm. wàcce ko doon wàcce. waaw man moom ni mu woon wàccee ndax man combat bi boo xoolee damaa jug si combat bi damaa bëre combat samedi dimanche lundi Matar Ndiaye woo ma ni ma laaj Ndiaye da lay jox Reenu Guy ma ne ko na ñëw kon kooku xam nga man man si combat laa jógee di préparer beneen combat waaw sama doom day nag usine mu nangalu moo doon moo amoon combat doon bëree moo kii benn tëñe ma ñëw ko jàppale contact for gaañu loolu kese la woon mais du dara. for gaañu waaw ma gaañu si tax bëreewu ma. loo tax bëreewu ma moo tax bëreewu mais yaakaar naa ni yëmbal bu ne yëmbal mënuñoo wax yëmbal génne ci bébé taala bu neex yëmbal génne ci nga xam ne mooy Diop deux borom soow mi mais coow juddu yëmbal jeex diggante jeex jàmm ak Diop 2 ñu bëri ne jeex jàmm ne sant la gërëm ne da nga bébé Talla ma doon jàppale affaire boo xoolee boo xoolee sax la ma ko wan ni mais seeraanu ma ko mais bi signature bi la booy ñëw dagg di ma wan naan ma jeex jàmm mi ngi ñëw mi ngi lay sant quoi mi ngi lay sant di la gërëm naan ah, naan da ngay jàppale man leen man jeex jàmm xaw ko mosuma koo ko gis man Diop 2 laa xam ñoo ànd bi muy nekk xale mu nekk sama booy ba ni ñëwee ni di bëre ñëw sin sin écrit nekk sama boy di entraîné di bëre ba am 8 combat 8 victoire ma koy ñaanal yàlla nekk 20 combat 20 victoire ma koy may ñaanal nag Diop de yàlla na yàlla may ndam si kaw jeex jàmm jeex jàmm bu defee loolu tam man mi ngi may tooñ ndax man xaw ma jeex jàmm mosuma koo gis amoo relation dégg la wax mosuma koo gis man war a a toog si taxaw jàkkaarloo ne maa non non na daa bëgg a xëy na daa bëgg a dox si si si de ndax ndax bi mu waxee loolu boo xoolee Modou Mbaye mi ngi naan ko ah, ba Diop de naan ko kii boo xoolee day jéem a dox eh, eh, day a dox si maayu ni mais tamit nag moom dama koy xamal ne daal li muy def ni mu rafetul ndax man xaw ma jeex jàmm xamaanu ma ko te lii soo nekkee nii booy job de tey bu fekkoon dañoo mel na ne mën nañ ko gisee neneen quoi fekk na fekk na nag demewul noonu waaw te ma koy wax làmb rek moo Diop de di ñaanal Diop de yàlla ko yàlla may na. yaa ngi Diop de déggante ngeen ci affaire boobu. non non déggante wuñ mais keroog bi muy def euh, kii bi. Euh, open press man ñëw naa kii tamit moom moom sama booy la. sama booy la sama sama waay la te moom boo xoolee borom baax la moom amul benn problème Diop de benn problème sama la wax dëgg yàlla day entraîné di liggéey di bëre yàlla di ko may ndam ma koy ñaanal yàlla yàlla yàlla ndam mais Diop Dóor wax dëgg yàlla mu amul benn problème boo xam ne dina tax naan lii ak lii hmm. moom du xalaat loolu sax dañuy gis ni problème yu bëri day judd si mer yi ay mbir mi am na diw ak lii xam nga am na relation diw bi ba day yenn mbëri di moytonte ngeen mbëri di yooyu waaw man boo xoolee jeex jàmm xaw ma ko man jour combat bi ma ko njëkk gisee te boobu si kaw laa nekkoon ba ñaako bu wàcc woon mooy Diop Dóor bi muy bëreeg si ta bu anti hmm. boobu moom moo nu bëree grand combat bi moog Ibu xaw ma nan waaw boobu laa ñëw gis ko mu bëre man boobu laa ko mujjee gis hmm. Diop Dóor xëy na nekk na koo xam ne si moom moom yooyu sax doxu si waaw yooyu sax doxu si wax dëgg yàlla di ko ñaanal daal dimanche yàlla na yàlla may ndam. waaw loolu laa war a jàkkaarloog jeex jàmm yaakaar naa ne jeex jàmm koo xam-xam ne ndaanaan gi nekk ci moom ndoxtu bëre gi nekk ci moom Diop Diop a jàkkaarloog moom dimanche incha allah. waaw jeex jàmm 6 combats la am 6 combats la am 6 victoire Diop 2 8 combats boo xool permanence da naan Diop moo gën a baaxle boo dee xool ndaanaan tam da nga naan Diop ndax boo xoolee jëli Diop 2 daan boo xoolee moom daanu ko boo xoolee tamit bëre bi Diop 2 di bëre boo xoolee moom moom bëreegu ko te ci kàttanu yàlla dimanche lépp dina leer. mais jeex jàmm ni muy bëree tamit moom la adversaire yi mu bëreel tamit si Diop bëri bëri na ñoom que dafa daan booy gën a ës ci làmb te bu ñëwee day indi kàttan ni mu toll doon dafa indi kàttan indi bëre indi xeex ab lépp. waaw tamit mais Diop de tamit moom daanaka si li nekk boo xoolee boo yim bëreel ni leen daane kenn ku nekk ni la daane ni mu daane moo bëri ay ndaane dama leen ñaan bu ëllëgee ngeen ñëw bu combat Diop de jàllee yëmbal maree bu ñuy entraîné ngeen ñëw xool leen jël leen yëmbal maree xale ño ñoom Cité Cheikh Frontière ñoom Paul boo yëpp fa lañ nekk ñoom Bolo ñoom Boy Pire bu Boy Pire numéro 2 boo xoolee boo yëpp mën a bëree boo yëpp ay ndaanaan lañ te ci kanam te su tuuti di ngeen ci xam dara. waaw ñoom ñaar adversaire yi diggante booy jo Diop Diop de ak ki nga xam mooy jeex jàmm ñoom ñaar xool nga leen ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne am nga li nga xam ne mooy sa fort. non man jeex jàmm amul lu may xool si moom man Diop de laay am lu may xool si moom.

daan na daan na Siteu bu anti Siteu bu anti ñëpp mbër la eh, ñëpp xam na ne moom mbër la bi muy bëreeg moom ñëpp dañoo yaakaaroon Siteu bu anti mooy daan mais teewul bi ko jàppee tamit mais tamit daal Jóob daal di nga ñaanal yàlla ko yàlla may ndam rek waaw di wax jeex jàmm nag na bàyyi li muy def quoi loolu baaxul mm. côté yëmbal mane parfois dañuy gis ni dañuy jékki-jékki gis bu weesoo yenn ténor yi muy ay bébé taala ay Diop de ñenn ñi pour ñu bëree day jafe lu waral loolu. pourtant booy ñi ngi bëree ndax boo xoolee le six moo waroon bëree après am booy bu si bëree Paul mais daa ñàkk même après bi ñu xëyee après buloo tamit bu lay waat na moom tamit. waaw yëmbal ma ne boo xoolee booy ñi ngi bëri daanaka boo xoolee ren sin combat na trop. bari nañ tamit ay victoire tamit. waaw di ñaan tamit yàlla gën a yokk rek. waaw en tant que mbër nga xamante ne nii mooy règlement bi CNG parce que saison bi ngi jeex. saison baa ngi ñu ngi si cëppandaw euh, li nga xamante ne nii mooy saison bi gis nga saison ren bi nu mu dé nu mu ba nu muy waaj a jeexee nu nga gisee seen seen euh, CNG bi taxawaayam ci làmb saison ren bi. waaw CNG moom taxawaayam moom li ñu koy wax daal mooy mu gën a jàppale mbëri ndaw yi rek ndax keroog buusi na maa ngi gis mu mu bëre ba pare mu ñëw mu ni 6000 francs lañ ko jox. 6000 xam nga loolu tam dafa métti si mu ndaw nga bëre ba pare war a jël sa reliquat ñëw fekk fa 6000 francs ak ak làmb nu mu méttee. man mii sama làmb bi bi bi bii passé ma daan jaay dafa ñëw ni ma ñaari bloc laa la jox ma ne noonu ma jox ñaari bloc jox ma ñett xam nga tamit mbër tamit bu bëggee jël ay ñaari bloc ñetti bloc di ko jaay pare ñëw CNG war a jël reliquat am di fekk 6000 francs ah, xam nga loolu tam neexul di wax daal seen seen yi daal nañ ci gën a bàyyi xel daal ci mbëri ndaw yi waaw ndax ndax mbëri mag yi mën nga ni boo ko fayee 40 millions dagg ko 35 millions kooku xaalisam jeexul mais mbër mu neexul di wax daal seen règlement yi daal nañ ci jéem a xool daal si mbëri ndaw yi quoi loolu jotul ñi leen wax li nga xamante mooy règlement bi ba nga xamante ni nii mbëri mi bu ñu ñëwee dañ ko bàyyi xel parce que mbëri tamit yaakaar naa ni ku bëri dañ dañuy comme ñu ngi tere ay fourneau mbëri bu ñu ñëwee dañuy indi fourneau est-ce que tamit na nag mbër xam nga mbër tey boo nekk defal lii mbër bu ñëw day ànd ak lu mat fukki maara am na biir maara bu ne bëgg a leen lenn léegi boo bëggee bàyyi maara bu ne bëgg jël taam def loolu boo paree daanaka yow say minutes day jeex mën lañ dagg léegi maara yi ñoom ñoom duñ comprendre ndax même boo waxee mbër mi règlement bi maara bi tey moom moom du xam règlement bi tey bi ñëw mën anda mën na indaale fourné wala muy ñëw mu indaale ay muus ak te kii yow mala yooyu te yëpp dañ koy tere loolu lépp mën naa nekk mais tamit loolu tamit di si ñaaxaat sama mbokku mbëri quoi ñu gën see bàyyi xel te xam ne làmb tamit règlement la di wax ménagères yi ak kii mu entraîneurs yi ñu ñëw di waxtaan mbëri di leen gën a wax règlement yi ñuy gën a moytu. Hmm. mais mbër bi tamit moo dem départ wala mooy maaraay sëriñ ñi ne leen que seen si dafa teg règlement léegi bu ñëwee dagg mbëri tamit est-ce que tamit man la déggoo xale moo neexut defar règlement hmm. nee naa la xale moo neexut defar règlement moo kii ñooyam waaw moog mbër ñoo yem ndax xale boo xoolee daanaka boo amee combat yow sa xel mépp si combat bi lay nekk sa xel mi yow concentré si combat bi lay nekk daanaka ay yooyu yëpp doo si bàyyi xel boo ñëwee daanaka li ñu lay daggalu si bari yow boo ñëwee du mbër mi yaa koy indi ñi nga àndal ñoo koy indi te doo wut doo nit sa doo doo wut sa nit wóolu ko jox ko sa xaay jox ko sa lépp ni ko ni man bagage yaa ma ko yoral après nga ànd ak moom ñëw ba jour combat naan ko noonu doo dugal lii doo dugal lii ma ku mel ni man man man bi ma jëlee combat dama jël sama lépp teg ko si 12 7 12 mu danoon bëre quoi mais instant yi bëreetul mais sama lépp moo ko yor mbay ngeer ñoom seex ñoom seex duraat ñoom kii ñoom njaga safle sama sama bagage yëpp ñoo ko yor xam nga man awma leen lu man dama dañuy ñëw jox ma ni ma am sangul diwul defal man leen loo xam si man dama koy def xam nga ni kooku tamit tey du seet mënul ñëw indi benn biteel jox ma ko ni ma am sangoo ko diilit ma naan ko noo waa dañuy aay diilit lu ak lu mu mënti am man dama koy sangoo rek su ma paree nag lu ma si fekk ma xam ne loolu mhm. mais yaakaar naa ni ba saison bi tëj Bébé Talla yi war a utiwaat nga xam ne mooy saison déwén noonu leen préparé même mbër bu ma waay bi toll fii da ngeen wàññi entraînement yi wala dafay fekk ngeen dugg hivernal ku waaj a saison déen bi wala non ñun boo xoolee suñ combat bi mujj le 20 la muy jëb da te boo xoolee saison bi li muy tëj boo xoolee yàggul kon ñun yaakaar naa ñun saison bi amul lu muy tëj si ñun ñun dañuy ñëw bëre le 20 dem màggali ñëw nekkaat si entraînement préparé ndax ñun moom am lu ñuy perte quoi waaw ñun moom fi na dañuy liggéey rek mais ngeen liggéey comme ko saison bi tëj ngeen kon ne entraîné comme dab leen si saison bi ngeen entraîné waat est ce que tamit balaa combat bi tamit. Hmm. boo dooree ñaar léeg-léeg nga dóor benn wàññi mais doo ñëw di dóor par trois séance hmm. xëy suba matinat lu ñëw dem saal ngoon jot nga bëgg a demaat fee hmm. boobaa bu saison bi tëjee nii dooroo dem fële quoi dem géej boo ñëwee bu guddee boo amee temps nga dem nga a nekkaat say bagage mais yaakaar naa ne tamit gis nga li nga xamante ni nii mooy rek euh, li nga xamante ni nii mooy CNG bi lu mu teg daan yi nga xam ne teg na ko yenn mbër yi yenn mbër yi tamit ñu bëri ni ñoom dañoo ñoo jalkati yoon ñi ne jalkati yoon ñi ngi jalkati yoon CNG teg leen ko looy lancé ab message en tant waaw xam nga mbër tamit boo amee combat ñu jox la combat jox la sa avance nga préparé ba combat bi waaj ñëw comme keroog combat yi ni ñu demee le six kii la lépp dem dugal ko CNG man tamit daan yooyu man mm. naa ne man damaa blessé man avant combat naa mais man maa ngi doon ñaan yàlla tane sax pour mën a bëri mais bi ma demee ba xam ne mënu maa bëri damaa dem wut sama médical ñëw dugal ko mais mbër tamit ba bis bi waaj ñëw a médical mooy loolu ma si wax sama mbokk mbëram ñu bàyyi a baax waaw a baax waaw ndax affaire texte la quoi tey boo bañun nga blessé ndax blessé moo mais boo boo boo blessé mënoo da ngay dem yow nga wut médical boo ñëwee dugal ka waaw. waaw dugal médical bi pour mën a xam nekk mooy règlement mais parce que yaakaar naa ne médical bi léegi dafa changé léegi CNG dafa yor rek euh, li nga xam ne mooy xool ma ñu xam ne li may wax lu nekk la ma dem def samay kii ak yëpp ñëw jox leen ne baax na ma carrément mënoo bëre ma dem waaw man dem ma dem nekk si ma nekkoon nga nekk si li nga daal yaa ngi si contrat sa digganteeg yi nga xam ne mooy reenu guy même lu fekkee promoteur pare wuñ pour tëgg ko tamit am nga yeneen adversaire non man moom am naa ñeneen ñu ma mën a bëreel man du reenu guy kase man kii lañ ma joxoon reenu guy ki mujjee bëreel mooy ka yaru noonu mu daanu te mu dëkk Pikine. jaago bi te waaw te mu dëkk Pikine jaago la reenu guy moo waroon reenu guy nomba yëkkati ka. moo yëkkati moo moo war reenu guy nomba yëkkati ka dóor ko man moom lañ ma jëkk jox. am na ñeneen tamit ñeneen tamit ñoo xam si proposé nañ ma ko tamit mm-hmm. mais tamit man nekkul reenu guy donc moo tax ma toog fi. man nee naa la man René Gouye taxul may entraîner mbër yëpp ñoo fi nekk. ñoo tax may entraîner mais nekkul René Gouye kase. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ki nga xam mooy Bébé li nga xam ne moom la fi souligné muy boo xam ne comme ni ma ko waxee bokk na si révélation yi lamb bàyyi xel lamb yaakaar ko ndax di ba muy soog a débuté si carrière am bokk na xale yi nga xam ne ñoo gënoon a ës lamb moo leen ko jox defet Alliance Baldé bi mu fiy tegee ay dynamique de moom moo ko daan moom bebe Talla du ma ko mës a fàtte yow li su ma juumul stade Iba la woon stade Iba Mar woon mu daa ko jox pen di daan général mu jógee foofu nag boobu léegi après c'est commencé ni mais mu ñëwaat ci làmb moo gi guy ñu war a jàkkaarloo dégg nga li nga xam loolu la leeral si diggante diggante jeex jàmm ak Diop 2 parce que nee na jeex jàmm da koo santoon ci li nga xam ne mooy signature ba moom démentir na loolu ñu bàyyi nga tàggoo waaw man maa ngi leen di sant di sant alaaji sama mag man boo xoolee suñu kër mi ngi fee si tëli marin bi mais fi ma nekk nii sama kër mag la man ak moom ñu bokk ndey ak bàyyi su ma amee combat sama gàlle mag bi laay ngeen boo gàlle ibba waaw fii yëpp daanaka suñu kër la di sant jabaram bi aw ak Anta di sant booy ma àndal papis di sant tamit mbay ngeer bu baax a baax waaw di sant Doucet di sant ñoom Cheikh Njaga Safle ma xaadim buloo maa ngi koy bu baax di ko wax su ma amee combat nga ñëw jàpp si bu baax a baax di sant waa yëmbal aw ma seen fay di sant waa mbos xaadim bey tam maa ngi sant bu baax a baax moom tamit borom baax la moom da siy jàpp bu baax a baax di sant meeru mbos bi tamit di ko wax su ma amee combat mu ñëw jàpp si di sant waa yëmbal gépp di nuyu waa tamit waa Touba tamit ñoom xujja nday mu ndaw binta sama mag yi sama rakk yi njaga safale ñoom Thierno ñoom Papis ñoom Bamba Pata ma leen wax ñoom tamit nañ préparé loo xam ne si pour su ma amee combat li nga xam ne si moom laa sama combat jeex ñu jox ma leen combat ñu préparé loo xam ne si ma paree su ma paree grand jox ma dem bëri ji la booy daal nañ préparé di sant tamit kii tamit sama mag bi yow kii ya Ibba waaw moo jabaram ya Oumy Ndiaye di ka sant bu baax sama combat bi mu gaaleem lay ñëw ngeen boo fa def lépp waaw ndax xam nga fee moom sama gaale buur bi day xaw bare yooyu noonu damay ñëw gaaleem ngeen bu def lépp waaw di sant ñëpp daal di sant waa yëmbal waaw yow tamit ma lay nuyu bu baax a baax ndax li nga def tam lu rafet la di wax tamit reenu gi tamit ma koy wax booy mi lamb foola ak kaf ak jarul nekk di saaga dugg si dugg si TikTok di saaga saaga yoo xam si mooy loolu waaw di sant waa yëmbal yëpp daal di nuyu waa mbos di woo nuyu tamit sama waa groupe temps booy bi tamit ñoom mayal njaga eh, Diop waa sama copain yi ñoom mayal njaga Diop xaadim ñoom Moussa Fall Mamour Gisé waaw di nuyu gars yëpp te instant bi ñu ngi waaj màggal gi di ñaan yàlla yàlla si yàlla yóbbu jàmm salaam di wax Sénégal tamit yàlla na fi yàlla def jàmm waaw kontaan naa trop wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf sant na ñëpp gërëm na ñëpp nu moom ki nga ne mooy bébé taala bu yëmbal mare ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaw maa ngi jaaj waaw am na baara baara maa ngi koy sant baara sama waay la ko amee combat day ñëw moom moom mi ngi seeraas wax dëgg yàlla sa eh, sama doom day la séeri ajaa su ma amee combat day bàyyi léppam ñëw jàpp si moom tam maa ngi sant di sant magam tamit seega waaw seega maa ngi koy sant bu baax di nuyu gaa yëpp daal waaw. jërëjëf mu ngi sant ngi sant mbokku internet yi ñu bàyyi xel bu baax a baax di jaajëfal ki nga xamante ne nii mooy joomam la àndaloon maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax waaye di jaajëfal ñi nga xamante ne nii ñoo ñu bàyyi xel chaque jour muy diaspora bi encore une fois ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax suñu borom dimbali leen ba ngeen dellu si suñu biir ndax woon ginnaaw réew mi métti na lool ba fi famille bi ak njaboot gi yëpp lépp loo fee sàkku suñu dellu si waat biir di ñaan jàmm tamit ci réew mi ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te réew mi ñu Sénégal di nekk réew mi ñu nekk muy Sénégal jàmm rek la moo ci xaj jàmm rek la war a am kon mbokk yi ñu ngi joxante dig daje beneen yoon ak beneen champion